yegg fi mosuñoo am jafe-jafe yii bi nu tabaxee corniche bu njëkk bii ci biir ci lañ commencé am problème tey nag kanaali yi bi ñu ko defaree problème bi ci gën a rëy mooy ndox mi léegi day jóge Kër Ñang di di dikk ci ñun tey Kër Ñang dañ daan am ndox boo fa demee doo fa gis ndox ndox mépp mi ngi versé ci koñ bi gisuñu kenn nag ko taxaw du autorité du sëriñ du kenn ko taxaw ngir bokk ak naqar bi loolu nag jaaduwul lii nag ñu ngi ciy woo président bi président Diomaye fay ñu ngi ko ciy woo di ci woo premier ministre Ousmane Sonko ndax bi ñuy sonn ci ñoom lu mel nii moo taxawoon bëgguñu taxaw ci jafe-jafe askan bi. regarde boo xoolee kanaal bi sama ginnaaw mi ngi rëfur la boo ko xoolee léegi gis ko lu ma deux cent personnes nag génn nañ seeni kër maanaam ñaar téeméeri kër ak lu topp génn nañ seen i kër te xamaguñ nag fu muy yem nag. ndax ñaari taw mel nii bu taw bu demee ba bu demee ba wax seet ñun fuñ jëm. waaye borom kër yi nekk fi yëpp génn nañ ñu bari près de presque plus de 200 maisons yoo xam ne ñu ngi fi yëpp génn nañ ñi fi des a néew dañoo jaaxle dañoo amul fuñ jëm rek ñu ngi dugg ci ndox mi nekk fi paludisme bi mën na leen fee fekk. kanamu yaay bu jaaxle waaw kanamu yaay bu jaaxle kanamu baay yu jaaxle ay kanamu xale yu jaaxle te xamuñu fu ñu jëm ndax jaay bu jaaxle baay jaaxle xale jaaxle nu ñuy def tumuraanke day ñëw. te lii tumuranke nañu te nag doonul benn at bi rek ñeenti at yoo xam ne ñun màggalewu suñu kër yi ganu màggal doo ko am te ay murid ay taalibe lañ màggal rek la ñu fonk mooy suñu lépp ñuy ñaan nag di jàll di nuyu seen sëñ taxaa suñu xalifa bi ku tedd ki di ko ñaan ndimbal mu dégg ñu parce que ñun suñu kàddu fii rek la mën a yem kon nañu yaakaar leen ci yéen ngeen xam ne seen kàddu yi dem ba kaw dimbale ñu ndax xam nañ ne am na yërmande ñàkkul na xëy na yëg na waaye xëy na niñ ko koy waxee ak ni mu koy déggee da du bokkee ni mu amee ndax fii ku xam ku sës ci moom rek waxuma la moom ku tedd ki ci boppam ku sës ci moom rek soo ñëwee fii xam nga ne xam nga ne ay jaboot sonn nañ waxuma la ak moom ku réer mandel ak ñëpp xam nañ ko dégg nga waaye nag jàlle message bi moo jàllut ndax bu jàlloon ba mu gis lii dana ñëw dimbale yaayu jaaxle yi dimbale baayu jaaxle tout tànk yu jaaxle yi nga xam ne charrette lañ leen dugal gis ngeen ko sànq charrette lañ leen dugal dugal ci ay maire di leen jàllale xam nga doy waar la bu loolu passé ñu koy wax premier ministre. képp koo ko gis xam ne du ndoxu taw. mais ay kanaal lañ fi installé yoo xam ne kanaal yooyu moo fees di ball lu tollook fukki fan ak ñaar gisuñu fi kenn koo xamante ni bokk nga si maire yi wala bokk nga si nguur gi wala bokk nga si kër kilifa diine gu ñu gis te ñu nekk ay taalibe Serigne Touba nag. am droit si dëkk bi bu ñu wootee ndaw ñi fi nekk ñëpp lépp lu ñu woote Serigne tubaa kenn mënu leen si fii ñu nekk ni daayira bu mag mi ngi fi boo xamante ni Serigne Touba rek lay liggéey. non dama ko programme daal di ñoo xam ni xar sax boo koy yeewee sa kër bu lu mel ni amee da dem xooli xar ma si gétt ga nga koy ba xam gi laxasu na wala laxasuwul mais rawatina ay taalibe Serigne Touba liy dund lii kon nag jaaxle moo tax ñu def lii ak bokk si di taalibe Serigne Touba daan naa dégg si sëriñ Alaaji Baara mu am kàddu gum daan wax lépp lu fi nekk taalibe yi ñoo ko fi def fii nag lépp lu fi nekk taalibe yi ñoo ko fi def tali bii sax bu daggee ñoo daan taxaw fii daaw di cotiser suñuy ñaar fukk suñuy téeméer suñuy ñeen fukk defar tali bi tey ñun ñoo am jaaxle gi gisuñu ma sàmba gisuñu ma Demba gisuñu kenn